طهور ما عليك يباس وبعد عن La direction de la santé de la mère et de l'enfant, donc représentant donc euh, le ministère de la santé. ci at yi nga xam ne weesu nañ ko euh, te mun nañu wax ni loolu 2012 euh, bi ñuy defee conférence bi ñuy wax sommet de Londres te ñu tollanti ko encore ci 2017 Sénégal comme ay yeneen euh, ñooñam euh, natangoom euh, def nañu ay engagement yoo xam ne engagement yooyu mooy vraiment prévalence contraceptive yi ñu jéem ko yokk vraiment parce que xam nañ ni que planification familiale dafay indi wargu yaram day indi wërgu yaram donc ci population yi donc depuis boobu ñu ngi siy dox euh, jóge ci euh, fukki poñ ak ñaar ci 2012 ba euh, ci année yu mujj yi ñu ngi ci donc ñaar fukki poñ ak juróom ba juróom ben donc loolu dafay wane ni vraiment jéego yi ñuy def yëpp ci en tout cas planification familiale mi ngi am ay résultats. population yi ñu ngi comprendre parce que boo xoolee même EDS yi. daf ñuy wan ni que euh, ñi ngi ci benn courbe boo xam ne mi ngi yéeg en matière de connaissance déjà ci mbirum planification familiale donc loolu muy lu am solo donc euh, euh, vraiment li ci am solo ci liggéey boobu ñuy def mooy yee population yi te liggéey boobu ñu ngi koy def parce que am nañu plan de communication boo xam ne moom la ñuy doxal fi mu nekk nii Euh, pour vraiment indi euh, euh, en tout cas connaissance yi nga xam ne mooy tax nit yi mun a adhérer ci li ñuy def te li ci jiitu mooy wan leen ni que mbirum planification familial dafay wàññi bu baax a baax ndeete yaay ak doom te loolu mu nekk lu am solo. Mm-hmm. الناس وبعد عنك